COJER Touba bi Mame Diarra ndaw jiite woon amal nañu ndaje tànn beneen coordinateur bu bees di coordinateur provisoire di wuyoo si Modou Sall. teg ko ci suñu kanam mu téyel ñu intérim bi ba ba dem assemblée générale. monsieur coordinateur Moussa Sow. Modou Sall la ñu validé coordinateur le coordinateur de la COJER Touba ñu Sall moo ngi nii kon incha allahu rabbi ñun Modou Baye Modou Sall mi moo nekk sunu candidat tey moo ko nekk ëllëg. coordinateur bees bi ñu tànn ginnaaw bi ko ay ñoñom sargale première moom bokk na ci topp si tànk coordinateur bii di Moussa Sow. coordinateur national di Moussa Sow le président de la république Macky Sall am confiance ci moom tabb ko jiital ko ci ndaw ñi mu ci liggéey liggéey bu solo loolu moo ñu motiver loolu moom moo tax ñu fas yéene jël kuréel gi fas yéene ànd ak moom liggéey bi mais du te ñi ngi tàllal loxo ñëpp waane lu ko jiitu nag am na fu mu jaar ba lii am Mame Diarra bi nekkoon coordinatrice ba nekkat ay jafe-jafe amoon na seen diggante yi ba nu woote woon benn réunion d'information bi ñu fa jógee mu am nag beneen assemblée générale bu nu fa amal moom nag àndu moo waral tey ji ñoom ñu amal lu ni mel. ndax sama jot mayatuma ko xëy na condition yi ma nekk mayatuma yenn yi ñu amoon réunion générale samedi passé loolu moo waral nag bi ñu dajee. réunion générale lañ amoon ma won leen ne kat man njiit li ma doonoon ngeen tegoon ma fi yàlla def na ni mënatuma ko bi ñu defee noonu ci réunion bi it doon na fa information boo xam ne dafa bett ñëpp bi mu bettee ñëpp nag ñenn ci biir kuréel gi ne ñoom kon nañ def foofa élection voté fa daal di ut coordinateur bu bees wala coordinatrice yàlla dogal na bi ma ñibbee ba sama kër gis naa benn candidat bi def benn vidéo partagé ko ci ay groupe wane ne nag moom coordonnateur la. seen ndaje bi ñu doon amal te woon na fa ay ndaw yu bokk ci parti bi bis ni nag ñoom jàpp nañu ne ñu ngi ci ginnaaw seen coordonnateur bés bi di Modou Sall.